Sawan TV. Sawan TV. télévision bi dox bëgg-bëgg. muy diine ak jamono. pour mën a am suñuy vidéo bu leen fàttee abonné. bu leen fàttee ba bi. ndax moo leen di yëgal xew-xew yi. ak Sawan TV kumpa tàggoon naa yi. wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyoo jotli ñu ngi leen jotli jotli nuyoo julit ak morom ma bala ma tàmbali sax samay wax damay dagaan ci mbooloo mi fi teew ñëpp ñu maasi ci ci fatiha bu fukki ak benn tëjee ko sirata wala nabi ko waaye man ñu addiyal ko cheikh mahamadou sa mi nga xam ne ya moo waral bis bi ak cheikh ahmadou mbàkke tindoo di mi nga xam ne mu ne si tudd tindoo di si tuddoo ak suñu mag ju baax ji nga xam ba ngeen ko mujjee def fii moo fi te borom ci kon man maa sa ñun lépp def def ko addiya doog a tàmbali wax incha doxin yi nga xam ne si moom la sëñ Axma doon dox bu fas yéene fépp foo xam ne daan na ko teg tànk wala daan na fa def lu baax mu jéem a ci ay jéego loolu la ñuy xeeñtu loolu mooy sunu loolu mooy suñuy suñuy dox kon da ngeen a lool ci moom rek moo tax ngeen gën a sàkk ci sama teew fii waaye sama ñaari doom yi rek buñ ñëwoon it mu doy ndax lépp lu ci man mën nañ ko. kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci bis bii nga xam ne moom ngeen taxawal tey di ko màggal te kenn taxawut taxawut ñu ngeen di ko màggal ku dul Cheikh Mouhamadou Moussa Cheikh Mouhamadou moom nga xam ne ah, moom la nu Sëriñ Tuubaa tàndal ginnaawam te muy ko mat ñi mat ko man ko sëkk man ko borom bi borom defee ab dogalam ci jëmmi sëriñ bi Cheikh Moussa dañu ko suñ kanam mu def fi liggéey bu rëy rëy rëy rëy ba nga xam ne fépp fu yoon murid àgg tey jii ginnaaw dogal suñu borom si jàmm suñ Moussa lépp lu fi taxaw rek Cheikh Mourou Sall kon bu ñu yëkkatee ab Cheikh Mourou kon bu ñu ab bis bis bu rëy bu toll nii jagleel ko ko di ca def tawasul di ci def di jàng alquran di jàng xasida ngir moom lola, mérité na soxlu ko kon dañuy lu ci taasu ci barkeem rek moo tax ñuy def lu mel noonu kon nak ñi ngi sant yalla bu baax bu ñu taw tawfeex ñu ñu fekkee wat ko bis bi ndax bis bu am solo la suñ borom moom mi nga xam ne dara tëwu ko jataay bi ay at ñaari at wala ñetti at yoo xam ne ñu mën ñu ko def ngir coobaree ba boppam nu wacce won ci taw aduna ba di ñepp tit ñepp ya. jaxlé ba tay mu am ak wayaf fi ci am ba nit ñi wat suñu borom ndax it nak lolit day jariñ jariñ la ba tay rek ndax julit bi fepp koo xam ci la yalla nak natt na ci yaramam wala ci alalam wala lu man di doon wala ci bakkanam wala lu man di doon ba mu indiwaat dellu si ko suñu borom rek te lii ngi TV. Sawane TV. Televisi bi dox ci seen bëgg-bëgg. muy diine ak jamono. pour mën a am suñuy vidéo bu leen fàttee abonné. bu leen fàttee bi. TV kumpa tàggoon